ñu bàyyi xel ñu ñuy neexal di leen wut lu ñu leen di kiye moo tax ñu toog ba biig ci guddi ñu ñu téléphoné ma vingt trois heures naan ma waaw euh, le premier ministre yónnee na fi ñaari nag ak ñaari gëléem ñun lu ñuy doyee ñaari nag ak ñaari gëléem dama leen di laaj rek mbooloo mu tollu ni ñaari nag ak ñaari gëléem lu ñu yónnee feneen duñ ko wax ah liñ ñu waxoon yëpp yëpp dara defuñu ko kon nag ngeen jàpp loolu xam ni ci xeex ak ñun lañu jëm mais ñun it pare nañu waaw waaw bu ko defee kon nag bala ñuy yegg foofu dinaa wax ak sama maam ba ja tuubaa parce que moom rek laa fi am comme allié. waaw moom rek laa fi am comme allié tellement sincère tellement ouvert moo tax lu may wax ak moom mën naa ko wax mais à part foofu nag Covid 19 waxuma ci dara waaw Covid 19 jeex na bu yàgg waay du dëgg ah waay. bu ko defee kon nag il y a trop de comédie. yàlla xam na ñu bàyyi xel sunu bopp rekk wallu candidature bi dinañ ci waxtaan suba. ma wax leen li ma gëm ak lu tax ma def choix waaw bu ko defee nag toog day daal di jeex ñépp takku liir yi sax nañ leen wutal couche waaw te kenn ku nekk ñu wax la naka ngay dompe wolof moo wax ni eh, domp sax ci sot la bokk waaw waaw loolu waxin la waaw ko defee kon rek bu ngeen seetloo depuis premier jour ba bi ñuy yegsi presque Serigne Cheikh Tidiane ñaari yoon lañ ko fi wane ñaari yoon waa këram dara ku ne tudd nañ la fel yeeg teeñ yeeg ñëpp waaw ne Serigne Cheikh bokkul waa këram bokkuñu comme noonu la nag jeex na ay ja waaw am na koo xam ni boo xamul lu mu doon it waaw kay dina la wax boppam d'une ma ou d'une autre waaw bu ko defee loolu mooy li ñuy sànni ci ay baat rek waaye ne nit ñi miin nañu lu ëpp loolu waaye buñ fi doon fanaan ba suba du doy barkeelu rek moo ñu indi woon doon naa tooñ sax capitaine ni ko ndax dooma demal ca gàmmu ba mu ni ma man <laughs> buñ ko naree def rek ñu fomm ko ma ni ko ëpp naa def di fomm di ëpp naa def ma waaw waxin la rek ndax respect waaw ñu tànn kon nag hmm. ñëpp bàyyi xel seen bopp rek te njaboot yu ndaw yi di roy ci njaboot yu mag yi waaw ndax dañu taxaw ci suba ci balcon bi ba ci yàgg moom capitaine mu ni ma ni ma gëstu ko mu ni ma xoolal tonton Serigne Ndiaye ak tonton Malick mbay ma ne ko waaw ma ni ko parce que ñoom ñooy doyen yi ñooy war a dëgëral xale yi waaw waaw ma ko moo tax nag c'est très important waaw ndax leen tàllal loxo fi ñu taxaw ndax tuutiwul waaw ndax waaye am na ñu mel ni ñoom am pas-pas boobu sunu mbokku maxtaan njaay wa tabarakallahu nit ko amul moroom waaw mais ñoom ñëpp ñu boole leen di leen ñaanal yàlla waaw ñaanal yàlla ñi nekk étranger sonn nañ ci ñun depuis daaw ak ren lu ne jënd nañ ko waaw yi ngeen fii gis yëpp ñoo ko jënd waaw toilette mobile yeeg réservoir yi def ndox yeeg yëpp diggante waa axe Europe ak waa Espagne lu fi war di farata rek taxaw nañu def ko yónnee ko fi waaw mu mel ni kon nag ña ca desit kenn ku ci nekk la nga mën def nga ko diggante waa États-Unis waa Brésil waaw waa Canada ñëpp waa Afrique du Sud yóbbaale aksu Afrique kenn desul waaw mu mel ni kon nag ñu ngi sant ñépp di leen massawu coono waaye di gërëm itam soxna yu jigéen yi ndax dëgg yàlla bu ñu ko talee gan ñi tal ko ñoo nekk ca coono waañ ba pour lu ñu toppatoo gan ñi waaw soxna Fatima ak yaay nekk ci seen kanam ñoom soxna Aja ñoom docteur Maymuna ak ñi ci des ñépp nekk ci jàppale ba waaw soxna roqee di jabaru cheikh yum bi ñoom ñëpp ku ci nekk sumeeku nga la nga man yëpp def nga ko ku ñu mën a tudd ak ku ñu mënul tudd waaw soxna sii nag waaw gannaaw bu ñu tuddee Mauritanie gii sama soxna bi jóge fa am courage lool wa tabarakallahu moo ki yaayam ñoo daan ànd mais bii yoon yaayam dafa xaw a amee grippe moo tax mu ñaan rek moom mu ànd ak njaboot gi ñu ñëw mu ànd ak ñoom tabarakallahu ñu am courage lool mu mel ni soxna itam ñaan na ma ni ma na nuyu soxna Ami bi jógee Suisse mais li mu xamul mooy soxna Ami Tall wu jëm la parce que sama soxna la <laughs> waaw ba tax na kon nag bu ma ko nuyoo bu ma ko nuyoo yëpp moom xam na